arbitre laa xay la la combat baa koy waaj a daw ndeysaan combat bee ngi waaye combat grand combat la rek dox ci diggante Tonnerre ak Dame Sène Tonnerre nga jàkkaar lool Dame Sène moo la ginnaaw mbokk yi dimanche 24 juillet 2022 fii ci arène nationale Ndiaye production ndeysaan combat bi nekk boo xamante ni diggante parcelle la ak pikin ba tey kañ lay jeex jëli jëli ñu ngi ci làmb ji ndeysaan ñoom ñaar ñëpp daam saan tegagum na ko ci yoon jili ndeysaan ñu ngay bëree waaye Tonnerre daa mel ni waxul benn xale bàyyi naa la ak yàlla li ma la wax moytul ma mbër mu yàgg ci làmb dem ba perte repère amar commencé amar confiance waaw du mbër mu ndaw du xale ndeysaan Tonnerre daam lu nar a xew jàppante nañ ndaysaan Tonnerre a ngi dóor ci suuf ndaysaan Tonnerre Dame Sène Dame Sène a ngay forcé ko forcé ko ko bu déri ah? Dame Sène lu muy tànte bu fa loxo Tonnerre génnul Tonnerre mën na ko contrer oh, li muy def noonu bu ko def na tël loxo bi jaar ci suuf waaye bu ko bëggee forcé bàyyi fa loxo bi mën naa dem ba yaakaar ne jeex na Tonnerre doole ko te Tonnerre dafa am doole suuf ndaysaan kon ñoom ñaar a bi ba tey Tonnerre Dame Sène Tonnerre Dame Sène Tonnerre Dame koy forcé waat Tonnerre zongale na mu yegg nañ suuf laay laay la laa jugaat nañ ña ngay xeex doorante laay laay la laa waaye ña ngay Dame Sène a ngay dóor ma ngay dóor dóor bu daanu mbaa du am moo taxaw mbaa du am ndeysaan na Tonnerre mu génn saaku yi warul taxaw warul soog si combat bi xeex warul si soor bëre en tout cas buy song na xam ne muy songee buy xeex na xam ne muy xeexee. Dame Sène Tonnerre mbokk ñu ngi ci combat bi ba tey ñu ngi xeex ñu xeex door mu daanu wala déet Dame Sène da ngay ensonné xeex ndaysaan ma ngay ensonné mu koy door Tonnerre daw na génn saako yi. laa ilaaha illallaah eh! erreur waa day jël kul mu taxaw di ko xaar du yoon waaw daam seen li muy def du yoon jaadul entraîneur am na wax ak moom mu ngi def yëfu mag Tonnerre mu ngi réussir lu garaaw ci làmb day jël coup ba dootul nekk seere ko waaw ndeysaan daam seen Tonnerre arbitre bi sifflé waat na Tonnerre génnoon na saako yi jël ñaari avertissement wala ñett ndeysaan ñu ngi noonu Tonnerre am na ñetti avertissement Dame seen am benn ñu ngi lewaatoo Dame Sène Tonnerre lii lépp jëriñ li doonam li ma la wax rek fa nga wokk mooy xesen delloo fa sab loxo lamb da liir déli Dame Sène combat bi dara du ci danse si moom lu dul songu songu suuf rek si moom ci combat bi ndeysaan noonu ma ngay cokkaasaat li yëpp waru nga bëri leen bëri bi ndaysaan combat la daw na jëli ko Tonnerre li mu bëggoon amu ko Jamaïque moom jàpp noo li ma la wax Tonnerre lii moom mun ko dóor ndaysaan Tonnerre daam seen daam seen fàqat na ko mu ngi koy tël paquetal na ko Tonnerre bañ na ndaanaan la daa mën a moom Tonnerre mbër mu mag la du mbër mu ndaw déedéet Tonnerre du ñeexum ñeppe ndaysaan Tonnerre tonnerre Dame Sène di ñeexum ñebe jili Dame Sène ngay tante tonnerre di ñeexum ñebe jili lan moo nar daa nar a wan ni tonnerre xale wala tonnerre da koy jaay expérience Dame Sène tonnerre jili ñu ngi ci koom bëtt position bi mbaa duñ la bëtt mbaa ñun jin la ndeysaan ñu ngi noonu bu ndengeñ bi génn daam mën na koo njinte daam sen tonnerre tonnerre ndengeñ na taxaw mu ngi koy jongale faqat na ko daam seen tonnerre ah. tonnerre nga doon tante jini tonnerre nga doon tante lu garaaw jamayke wala wax xam naa ko tonnerre mu ngi doon tante lu garaaw ci diggante ma daam seen tonnerre mbër mu mag la daam seen warul jàppanteeg moom di déglu ndax day utiliser xelam tonnerre fu daam seen jàppee bàyyi ko muy xelaat dansale ca daam sen jàpp bàyyi ko muy xelaat dansé la ci Dame Sène Tonnerre Dame Sène laa ilaaha illallah Dame Sène bëtt na ko nacc na ko ci suuf mu ngi ko ndomba Tonnerre bañ na sigi nañ ah! waay laa ilaaha illallah ah! waay xale yaa ngi bëre Tonnerre Dame Sène xale yi bëre nañu ndeysaan bëre nañu ndaysaan bëri nañu ñaari xale yi ngi wane seen bopp Tonnerre Dame Sène ndaysaan jamay kee waxoon na ko gis na lamb ji ay <laughs> combat bi Tonnerre Dame bu doon oto ma ni la dañoo jëli essence ba ñëw arbitre bi sifflé waat na Tonnerre Dame Sène ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar premier round bi jeex na awaay ah combat bi fu muy mujj Tonnerre Dame Sène ñoom ñaar ngi noonu di leewaatoo Tonnerre Dame Sène moment bi nag ci làmb coach rek moo ko mën a daan moment bii la ñuy xam expérience su coach bi day ñëw jeexal làmb ji wala day ñëw téye làmb ji waaye am na ci mbër moo xamante ne ci ñoom ñaar bu coach bi bëggoon jeexal làmb ji léegi mën na koo jeexal. Tonnerre dina fayu Tonnerre a ngi commencé bokk ci combat bi daw nañ jàppantewaat jàppantewaat nañu ndaysaan Tonnerre Dame Sène Tonnerre Dame Sène Dame Tonnerre jàppante nañu ñoom ñaar caxabal mu bañ la ilaha illallah ah lu ne mën naa xew ci ñoom ñaar Tonnerre a ngi dóor ci suuf pour Dame sëgg Tonnerre daa bëgg Dame fayu génne na ko saaku yi Tonnerre day jël quatrième avertissement wala déet Tonnerre boo jëlee quatrième avertissement ragal naa sa lamb day yàqu ndax boo amee cinq avertissement dañ lay disqualifié lu ma la waxoon quatre avertissement leer na arbitre bi sifflé waat na Tonnerre Dame Sène Tonnerre Dame Sène actuellement nii nag Dame Sène moo ëpp avantage ci combat bi fi mu toll nii Tonnerre moo war a bëri lamb ji ndax su temps bi jeexee mu ñàkk su génnaatee saako yi ñàkk bëre rek moo ko ci gënal accéléré daam seen xeex moom jàppante ak moom jéem a bëre tonnerre daam seen tonnerre daam seen tonnerre daam seen Tonnerre Dame Sène ñu ngi noonu ndeysaan Tonnerre Dame Sène ña ngay xeex Tonnerre nga dox ci koom da ko bëgg a jàpp Tonnerre dóor na Tonnerre dox ci koom ngi dóor ngay dagg Tonnerre Dame Sène jàppante nañu lu nar a xew Dame seen jàpp na ci geño am na ngeen moom daam loxo ndi joor bi bàyyi na ko fa Tonnerre na ngeen na ko ndengeñ bi est-ce baax na ci Dame seen ñu ngi ci ñoom ñaar Tonnerre Dame Sène Tonnerre Dame Sène Tonnerre Dame Sène Tonnerre Dame Sène na ko laay laay la laay yegg nañ suuf ña ngay bañ Dame Sène Tonnerre ña ñoom ñaar combat bu nar bu metti sax Dame Sène Tonnerre Dame Sène Tonnerre Dame Sène laa ilaaha illallah Tonnerre a ngay forcé Dame Sène Tonnerre Dame Sène Tonnerre laa ilaaha illallah Dame Sène eh. moo daan boppam moo daan boppam def après amul woon appui pour jógaat poids lourd la poids lourd bi bii saay bee ko sonal bi mu wàccee pour mu jógaan automatisme bi gaawul. dëgg la Pape Maguette.